al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa ibaadatu wal xidma seen mbokkum taalibi mbay géey sil liggéeyaa ko na borom daarul moxti ma leen di nuyu di leen ziyaara di jébal nuyoo bi al imam Cheikh Awa Balla Gueye mi nga xamante ni kàddoom yi moo tax may addu dafa am lu am solo lu muy wax moom mooy fi mu daaneele dafay wax ni yoonu murit wi loo ci xool gis ni yaa ko ci mag xamal ni bokku ci luñ ca def la muy lu am solo waaye lima ma gën a neex ci waxam yi rek mooy loolu mu wax ci mag ñi toppoon sëriñ bi doo gis lu juunu mukk ñu ni ci ñoom la jóge wala ñi leen wuutu sama laaj nag mooy bii sëriñ ma Masamba Diop Sam sëñ Kaab Abdourahman Lo sëñ Daaru Asad Jaay maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Cheikh Issa Dieng mag ñooñu nga xamante ni seen lépp dañ ko jaayoon jox ko sëriñ bi ñi ñu fi bàyyi lenn rek lañuy déglu ci yoon wi mooy dégg ndigal bu jëfe ko jéemuñoo doon ci yoon wi lu may ay taalibe jëmm joo xamante ni waxoon naa ko fi ci xew-xew yi amoon Amérique kenn xamul maamam kenn xamul baayam maamam musta dem xomak waxuma la Sëriñ Tuba waaye maamam musta gis kenn ci njabootu sëriñ Touba gi waaw jëmm ju noonu nan la bëgg a ëpp sañ-sañ ñi nga xamante ni seen maam seen dund yëpp dañ koo jaayoon Serigne Touba man daal loolu moo ma ëlëm Cheikh Mahamadul Murtada mel na sunu borom yokk ay leeram dafa am lu am solo lu mu daan wax. mooy nee na dugg ci loo bokkul doonoo ca dara waaye ni ca lijj nga kenn mënatula caa génne loolu nag mel na ni mooy li xew ndax ñi nga xamante ni bi sëriñ bi di tabax yoon wi seeni maama daan dem di du yi si way ndox di yenub ciment di indi di indi suuf waxin la maanaam li ma bëgg a wax mooy ñu àndoon nag sëriñ bi déggal ko lool doon déglu ay ndigalam rek ba jëfe ko seen descendance maanaam seeni sët tey dégluwuñu lu may Cheikh Muntaxa ni lii laa bëgg ba ñu jëfe ko waaye duñu jël benn dogal walla benn sañ-sañ ci yoon wi koo xamante ni ak xay cëpp la kenn xamul fu mu jóge moom ñëw ci biir tool bi bëgg ko ruur loolu yi moom mooy li jaaxal ñépp kon nag al imaam ñu ngi lay sant di la gërëm wax ji gàtt na waaye am na solo waaye nag sëriñ bi de moom gëmmut nelawut te ki mu fi bàyyi mu toog ab jataay bi ton ci Cheikh Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wér Mbàkke moom day mat na la mu doon ndax xam ne xamle na boppam ci ak toppe ñoom war a topp xamle na boppam ci ak taalibe di jiitu muy doon Sëriñ Tuubaa kon nag ku am fitu jàmmarloo ak yoonu Sëriñ Tuubaa wi Cheikh Muntaxa jiite te doo dara lu may jigéen am sañ-sañu bi yëkkati kàddu ah baax na li ci kanam rew li bët sëriñ bi de tudd na jaasi tudd na sën sën mooy mbalit kon nag lii eh, anglais di wax way en si nan xaar rek xaar yàggut maa ngi jégalu bu baax a baax nag ci kàddu yi